dellusiwaat nañu suñu yóbbulu koor di waxtaanee doon waxtaanee njëriñu koor wax nañ importance bi nga xam ne moom moo nekk ci ragal yàlla jeex yi mu def ci nit ak ci société bi muy dund ak fan la war a feeñ waxtaanee nañ ci loolu waaye te lu ñuy waxtaanee an lan mooy ragal yàlla bu ñu demee ci boroom xam-xam yi firi ko firi yu bari borom xam-xam yi firi nañ ko firi yu bari kenn ci taabiin yi taabiin taabiina bi bu waxee taabii yu buñ ko waxee mooy koo xam ne dafa ñëw gannaaw ba yonente bi génn àdduna saxaaba yi génn àdduna wala gannaaw ba yonente bi ci la ñëw la ñuy wax taabii kooku nag kenn ci taabii daf ko firi moom mu ne ñu ne mu ne lan mooy ragal yàlla mu ne an laa amarak mooy fexeel ba yàlla bu mu la gis ci foo xam ne daf la ko tere te it bu mu la ñàkk fekk foo xam ne daf la ko diggal li mu la bëgg wax mooy fexel ba yàlla gis la ci foo xam ne daf la daf laa digal fexeel ba bu mu la fekk foo xam ne daf laa tere ci lépp lu la yàlla tere rek danga ko moytu mooy lépp lu la yàlla digal nga nekk ci kon loolu loolu la bëgg a wax ki ñuy wax imaam ali radiallahu anhu moom daf koo firi daf ne attaqwa alxawf min aljalil mooy nga ragal ki màgg ki muy yàlla wal amalu bi tanzil gannaaw loolu nga jëfee li nga xam ne mooy alquran wa rida bil qalil waaye gannaaw loolu tamit nga def nga def li ñuy wax ngërmande ci lépp loo xam ne yàlla nga ko may moo xam lu tuuti moo xam lu bari nga gërëm ko yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam na wax ne mus na wax benn saxaaba na ko am na juróom baat yoo xam ne kan moo koy jël wala mu joxe ko koy wala mu xam ko ku koy ku koy jëfe abbas moo jël xadis boobu moo ko jëlee ci déggee ci yonte yàlla muhammad salaa Alaihi Wasallam ko déggee ci muhammad mu ne ko bokk na ci lima ma lay digal maharima takun abada nas nanga ragal tet lépp loo xam ne lu la kon nga nekk ki dàq jaamu ci nit warda bima ma xasama allahu lak gërëmal li la rek takun agna nas da nga nekk ki gën ci kon agna baat boobu moo ci ci soxlaal xadis bi ëpp na loolu bañ temps bi jeex waaye li mu bëgg xam mooy nit soo gërëmee li la yàlla jox rek su ko defee yàgg gën a risque nit ñi kon ne ki gën a ñàkk mooy ki gën a mooy ki séeneen doot la am nga ay milliards nga séeneen sax yow amuloo dara yàgg na a ñàkk ci nit ñi waaye koo xam ne jox nañ la li ñu la jox lu mu tuuti tuuti nga gërëm ko rek yow yaa gën doylu ci nit ñi te yonent yàlla Muhammad wax na ci beneen xadis ne al ghina ghina nafs doylu dëgg-dëgg mooy doylu sa bopp kon bokk na ci kon euh, liy tegtal ragal yàlla mooy nga gërëm li yàlla jox donte lu tuuti la wal istidaadu lil mawti ak nit ki préparé ñeel jëm alaxira xabla raxili njëkk muy dem njëkk muy gaañu mu préparé alaxiram bokk na ci li tegtal li wane ragal yàlla ñu ne ragal yàlla kon nag yooyu yëpp benn baat lay firi mooy nit ki fexe ba marsiyatulaay bu mu ko def ak li nga xam ne sori mooy li nga xam ne mooy jàmm mooy topp ndigal yàlla kon buñ demee ci borom xam-xam yi wax ba tey ñu ne bokk na ci lii firi ragal yàlla ne nit ki buñ jëloon def ko ci benn plat plat bu set di dox ak moom ci marché bi du rus bañ ko ko ngir sell gim sell nit ki bu àggee foofu rek àgg na ci ragal kon ñi kon mboolem yi ak alaaxira ñi ko boole ci suuf baat boobu muy baatu ragal yàlla mu ne bu la neexee xoolal ci alxuraan su boobaa da gis njëriñ yépp kon yàlla ñu yàlla may defal ragal yàlla defal ñu dégg topp defal leen ko incha allah émission bii di ñëw danañ wax njëriñ ci nekk benn par benn ak aaya ba ca wax su ko defee nit ñi mën cee jëriñu wa ma zalika allah bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu